Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, damay nuyo pour Leral, parce que amna lo xamne bo amé leral daf ci war man le Serigne ke yenn fi euh président directeur général de SOS service SA am comme nak wax bu amé il faut Leral am motax mané dafa war ma leral même budul pour man pour ñi may samay am di jàmm samay ñi ma bokkal ak waa dëkk bi yëpp ñiy déglu ak ñeneen ak ñeneen parce que dara bu amee leeral daf ci baax moo tax ma ne ma woo waa Dialaw TV pour leeral ndaxte wax am na coow bari na léegi nag dama bëgg a ñëw si lépp nan la demee mooy les faits faits nag mooy dama signé ay contrat ak ay Euh, coopérative Amna na coopérative gendarmerie Amna na coopérative ay du gendarmerie C'est parce que gendarmerie dafa bëri ay mais amna na ay coopérative ay promotion de gendarmerie Ces promotion yoyou nag am na ñu ma signal ba tay ci aw ma ak ñoom benn xarma yàlla am la 42 wax la 42e promotion des élèves gendarmes te Saalu yu Sow jiite leen di trésorier Mamadou Mbaj kalmenti euh, di vice president ñooñu la amal mawar wax ba ma war leral leeral lan la li ma leral nak leeral nag mooy contrat ba signé ak ñom signé nako mais lama signé ak ñom ñom matalu defu ñuko man lama war lama war ak ñom lepp def nako matal nako moy dama signé ak ñom ay parcelle la leen wara jox bima leen jox ay parcelle

ni hamne mom lañ koy jox te comme man ñom la signal mon conseil que le mieux moy ma def ko sen tour mais ma signé ak ñoom contrat yu lèr ci confiance bobu ma amone nak te yaakaar ne am am yahin ne homme de tenue ah bu mu doon du def du def jalgati ma jël sans xalaat ci lu bari def ko sen tour ba ma ko defé sen tour ma jox len le lot G ak nikaatam ak le F ak nikaatam ba ma ko defee ba ñu def ay réunion ba mu jàll yooyu yëpp j'ai les yoo xam ne qui l'atteste qui l'atteste am courrier de réception yoo xam ne moo ko attesté bañ ko defee nag ba mu nekk seen tur pour ñoom nag ñoom moom ñu teggi ma teg ma fële a ah, man it ma toog see ma toog di ma toog di xaar rek parce que contrat moo ñuulee ma toog di xaar contrat bi fu ñu jëm. ba contrat bi jeexee bi ñu liyeeg moom bi ma waroon a liyeeg ñoom mooy mu waroon a jeex novembre deux mille vingt et ba mu jeexee ma wax na leen nag comme que loolu la léegi dama bëggoon réunion bilan financier après ñu xool lu ñuy def taxdal nañ ko taxdal nañ ko ba benn instant ñu ne ma ñu daje LGI mbaaw bañ daje LGI mbaaw man ba may ñëw ma ànd ak sama huissier ba ma ànd ak sama huissier waxuma leen ne sax damay ñëw ak huissier parce que xamoon naa ne bu peut-être bu ma leen ko waxee sa réunion bi am parce que mosuma réunion ñoom sans ak ak huissier léegi nag ba ma ànd ak sama huissier ñu def bilan financier ma gis ne y a des malversations huissier bi constaté ko bi ma ñëwaatee man it ma def samay calcul général ma gis ne yaa a une mal des malversations yu bëri ah ma def sama plante devant le procureur de la république le 22 avril 2022. Quand j'ai fait sama plainte man dit dig le 12 mai 2022 Je ma dit dig dégloo tamit li euh, jo transmettre à procureur je transmettre à ko brigade prévotale. Je mu ko la brigade prévotale, c'est le mois de juin là. juin juillet août gisuma dara ba man le 16 août ma le général de division haut commandant de la gendarmerie nationale le général Moussa Fall ba ma ko bindee day gis naa si résultat ba ma ko bindee gis naa si résultat enquête bi demna ba mu gaw mu demandé len enquête interne def nañ enquête bi deex jox ko joxaat procureur mais biñ ko joxaté mom général Moussa Fall si deug si lima xam si man mooy la mu war def na ko mooy nee na enquête bi defaat leen ko biñ ko defaate ñoom waa brigade prévôtale ñu dem sa banque ba si banque yi jël sama relevé compte bancaire indi depuis ba mu ko ubbeek tey jël relevé compte bancaire u quarante deuxième ba depuis ba ñu ko ubbeek tey bañ confronté relevé yi gis nañ la ma doon wax te def def nañ rapport pour général bi bañ defee rapport nag def nañ ko am na yoo xam ne fu militaire la du ma ci dugg général bi tamit bind na ma ma saw ma ne ma jox na ma feu vert pour ma dem justice parce que justice moo koy regle parce que contrat bi ñu koy signé di woon contrat boo xam ne ñoom commandement bi la te loolu tamit dëgg la ma ko si gërëm nag di ko si sant parce que mooy seen kilifa ñoom ñëpp te la mu war a def def na ko si la ma gis la mu war a def def na ko ak yeneen yoo xam ne peut-être ñoom seen liwu euh, militaire la am na yoo xam ne duma ko fi wax comme ni ma ko waxee c'est confidentiel duma si wax damay bàyyi rek les actions vont se dérouler comme ni ma waxee na contrat bi ma si ak waa 42 loolu la ñoom respecté wuñu contrat bi am na fayuñu xaalis bi am na lu ñu fay am na lu ñu fayul te contrat bi jeex na ña doon cotiser ñëpp cotiser nañ ba mu mat ñu daggal leen xaalis bi nak entre euh, ñom ñoñu ñet ñom ñet ñoñu ma lim ñom lañ kay laaj te ah, ah, man xamna su lu leer man bi lolu kom comme nima waxé ci si contrat xaalis bi affaire xaalis bi rek porté won na ci plainte ba ma si porté plainte ba tay lolu dossier bi mo ngi en cours mais dafa am benen action bu ñëwaat action bu bees bo xamné dimanche samedi euh, dimanche 1er janvier la ko xam plan wi euh, dama ñew ñuy terrasser di terrasser après am ñu naan mu ngi dugg seen tol te yoy bokul won sama plan Bima ma posé euh, si sama ak sama plan ma gis ne plan bi mako joxone modifier nako na ndekete dindi partie G bi xam mu ngi ci TNI bi conserver partie F bi xam mu ngi si euh, TF bi modifier ko nak bu dugg ci tolu jambour presque de 4 hectares yo xam du man mako ko ko jox la ma ko jox man xam naa ko maa ngi tous les papiers mooy la l'extrait de plan cadastral bi ma ko jox mu ngi nii avec les moom la mu modifié moo nekk nii en jaune mooy li ma ko jox en rouge mooy li mu modifié bu loolu amee coow la bëri na ma ne nag man comme que demee na noonu man comme si yoon si fi yoon rek laa koy dox teg si laa koy delloo ma bindaat procureur de la république beneen plainte boo xam ne mooy fee yu bees yi mooy changement de document administre euh, euh, changement de document ak fo euh, abus de confiance et escroquerie bii loolu amee déposé waat naa ko ma bindaat tamit si même jour bi beneen lettre déposé waat ko si comme commissaire bi état major yëpp nag mu ngi mu ngi en cours li may leeral mooy ñëw mu ngi fi ñëw nag di terrasser di def ah duma si man comme ni ma ko waxee lépp si yoon rek laa koy teg. mu ngi wax nag ay relevé samay relevé la fa jaar man société laa yor sama société depuis six ans la fa jaar yëpp mouvement yi yooyu la yor relevé naan def na jox nañ ko nangam jox nañ ko nangam waaye lenn rek laay laaj nit ñi laaj ko liñ ko jox génneel ñu ko. parce que mu ngi am na ñu bi mu fa demee keroog mu ngi génne ay décharge naan lii sëriñ si signé man signé naa ay décharge yoo xam ne si wu ma décharge espèce. parce que li tax ma ne mooy loolu dafa am fay fay xaalis dafa am ay mot nu ñuy fay xaalis dafa am espèce mooy jokkalante xaalis loxo ak loxo man sax seexuma ak ñoom jokkalante xaalis loxo loxo dafa am paiement chèque dafa am paiement virement am léegi sax am na paiement bi mooy Wave ak Orange Money yooyu tamit ay mode de paiement la comme nag maa ngi seexanteeg moom virement ak chèque joxoon jox na may desate ne ma dina euh, dinaa la viréel nal defal chèque chèque yi nag ba ma demee ba contrat bi jeex j'ai constaté bi ma defee euh, sama retour ci banque bi def sama état euh, euh, dugg sama compte que ne c'est tous ces virements n'ont pas été effectifs chèques yi n'ont pas été effectifs te li ma lay wax nii li ma leen di wax nii brigade provotale ils ont constaté ça li ma li may wax lu leer la brigade provotale ils ont fait une réquisition sur les deux comptes ils ont constaté que certains virements la plupart des virements ñëwuñu mom moko retirer bopam wala kalmenti mbaj tamit gis naa ne retiré na ci mais la plupart des virements ñom ñoko retirer ay chèque tamit ñom la léegi bo décharger le nit chèque virement bu ma ko déchargé espèce duma fi tok di wax mais chèque lañ bind virement chèque virement nak day am trace ci banque bi yaakaar ñi xam lan moy finance ku xamul finance nag mën nañ laa nax bu wanee ne décharge yooyu chèque yi maa ko retiré virement yenn yi effectif na rek wax ji bariwul mais te du wax ji du bëri te loolu ñi ko war a constaté constaté nañ ko def nañ seen rapport te bu soobee yàlla mu ngi ñëw beneen affaire loolu daal laa si amoon man nag comme ni ma ko waxee acte yi ma posé mooy li ma war a def def naa ko déposé dans les plainte tok di euh, benen li nak moy mom bu dégué dañé dégguna même ñi mu bokal wa 42 laaj nañ ko relevé dafa bañ am am ko plainte relevé bi dafa bañ ne du parce que xamna la sa nek bu dégué ni ñi dañ la dénk ñu ne lay jox ñu suñu relevé ñu ko nga kon kon ñew fi di jaxase man nak mono da nga yaakar ni man nga ma jaxase wala je suis tranquille salut saw mbacc kalmenti je suis tranquille bo len fogné ne da ngeen may perturber je suis tranquille parce que man xamna lima def te xamna ko limay ma si nak ci changement plan yi ak xaliss bi ngeen jalgati moy yeen ah ci li ñuy dug ngeen li ngeen di tuddé bok association de malfaiteurs moy ñi di def ki di def yen ñep ngeen andasi si yéen day mën naa leen tuddi association de malfaiteurs ndax jàll ni ngeen xaliss bi changer ngeen plan bi te limay budega wax bu dégg du dëgg yéen leen plainte jarul ngeen di ñëw fi naan ko wa euh, di jema nax nit ñi ay këyit ak nangam ak nangam porter leen plainte ñu jàppale leen yéen ci seen bop dëggal leen seen bop ngeen porter plainte parce que ay malversation ngeen def changement de plan association de malfaiteurs lépp ngeen def dem ngeen bay pousser nit ñi sax di leen peut-être sax xaw ma si yéen la nag xaw ma si ña xaw ma nit ñi seen xalaat la loolu du ma si dugg ba ñenn ñi naan sax Serigne xam naa mu ngi seet visa pour daw <laughs> da ngeen xamul kan mooy Serigne moo tax xamu leen kan mooy Serigne Joon mais li ma leen di wax mooy si wax jooju sax pour pour dalal xel ñenn ñi dinaa jël sama passeport man Serigne Joon dem dénk ko commandant de brigade bi bu ko nangoo su ko nanguwul ma seet keneen ku ma ko dénk parce que man aw ma lu may ragal te yéen bu bu leen foogee ne da ngeen may xol da ngeen di nax seen bopp. leneen li si des nag mooy damay terminer si loo xam ne ay conseil la yoo xam ne dama koy jox samay dëkk samay euh, dëkk ñi ma dëkkal ah ñeneen ah ñeneen ñi dëkk si dëkk bi ah ñeneen ñoo xam ne sax dañuy yëngu si lu muy yëngu walla ñuy tamit def si affaire immobilier mooy. yéen fii dafa am loo xam ne dafa fi am mooy ñaari pôle pôle day yéen ak pôle de daaga xolpa yoo xam ne lépp ay titre foncier la décret yi ñu ngi ko créé décret yi en 2013 la woon pôle yi ñu ngi ko créé en 2015 pour jot si nag dafa am ay critères yoo xam ne nguur gi daf ko teg parce que du ko jox nit pour mu enrichir su daf koy jox pour ay coopérative ak yooy ak yooyu pour nit ñi dëkkuwaay parce que tamit dëkk il faut ñi ñuy dëkk. Sénégal bu njëkkoon ay na dañ naan ay 4 millions ay 6 millions bu ñu demee ba naan 17 millions te day gën a yokk kon nit ñi dañuy dëkk te nit ñi ni ñuy dëkk mooy état day jël dara def ko intérêt public ñu ko jox pour intérêt Serigne Ndione wala intérêt kaneen ak kaneen intérêt public intérêt public nag mooy loo xam ne day jëriñ ñëpp parce que fi ñu dekk nii si yéen fi may toog ni di wax ak yow ba mu fiy ñëw 78 melul woon nii te tey jii maire bi def na fa maire bi def na fi ay lotissement yoo xam ne tey jii ñëpp. fii yëpp ay toolu jàmbur la won kon lolu moy intérêt public lolu moy intérêt public ay marché yeeg stade yep ay lolu moy intérêt public état nak intérêt public la wax def na fi ay dëkkuwaay ñi ñaa ngi te boo gisee may wax moy nañu maytu lotissement clandestin yi ah man day dama koy diggal ñima ma lotissement clandestin moy lotissement bo xam ne amoo autorisation de lotir parce que autorisation de lotir sax maire du ko joxe. urbanisme moo koy joxe état moo koy joxe te dafa am ay critères yu bees yoonu yoonu huit mètres amatul yoonu dix mètres la ndax nangu état nangu léegi ak yeneen i critères yoo xam ni danga man nag li may wax nii du question que dama xam lépp de damay ja sàcc tuuti rek si li xam ma jéem a xamal ñeneen ñi parce que lépp ay déli la te ni ma wax état yéen fii am na ay TF Poul Daaga Holpa. amna ay armel yo xam ne état def état def na fi ay cimetière musulman def na fi ay cimetière catholique cimetière musulman de 26 hectares ci ay tool la nek cimetière catholique te bo fa demone tay peut-être de lépp li ci ëpp bordé nañ ko ñoñu nañ jàppane ñu ngi ci erreur te ku ko jaayit ya ngi ci erreur TF bi tamit ku sa jaay jappal ne délibération mënu fa am ya ngi ci erreur kon loolu motax may wax mais du xam-xam bu ma leen gëna a xam mais peut-être nek ci lima nek di jema saytu di jema a gëstu moo may wax te damay bañ tamit am na yoo xam ne bëgguma mu mu am jaay nit nag mu dem si teef bi mu dem état jox ko keneen kooku ñëw dëkk am ay këyit yu leer dëkk ka nga jaayoon ñëw di la laaj xaalisam amoo loo ko fay ah am na lu ko gën loolu daal laa amatul ma lay ne jàpp nañ fi Jacques mooy foo xam ne eh, pour dëkkuwaay la poolu yéen bi rek def naa am na douze mille la daa ko xool pa ñu ngi naan cent mille am na am na comme ni ma ko waxee am na cimetière am na ay équipement am na stade am na yu nekk yu nekk li ma wax nag mooy loolu si loolu parce que dafa am ay documents yoo xam ne moom la wax type de document dafa am permis d'occuper mooy dañ la dañ la may pour nga nekk fi pendant quelque temps am na délibération yoo xam ne mairie moo koy joxe délibération ni ma ko waxee mën a waxee kayitu juddu la kayitu juddu nag sa doom bu juddoo da ngay dem mairie wala nga def seen extrait mais kayitu juddu am na lu ko gën a fort mooy da ngay dem nga régulariser pour am nikaat mooy numéro d'identification cadastrale suuf day am carte d'identité boo amee délibération te si suuf amul carte d'identité jàppal ne kenn xamul suuf si fu mu féete moo tax suuf si bu ñu plan booy def mu am ay coxte ñu xam ne fii la commencé fii la yem comme ça bu ñu lay seetal carte d'identité mi ñu ne la carte d'identité suuf si fii la commencé fii la yem am na baay am baay ni ma ko mën a waxee location la suuf su la état loué la nga war a fay at mu ñàkk amna à part bàyyi am titre foncier titre foncier nak moy lo xamne ya ko mom sa giir ak dund le titre foncier moy kon nak titre foncier yi fi état créé état du Sénégal moko mom droit réel baa ngi état du Sénégal moko mom titre foncier la droit réel baa ngi c'est pour 412 hectares bu le nek da ko xool pa nek 700 te amna extension kon nañ gën a def ndànk si li ñuy def loolu daal laa amoon si sama pour yëgal leen gannaaw ba ma waxe si lii indi coow li leeral comme que nag euh, noonu la euh, affaire bi la moo tax ma ne ma leeral mais dama li ma leen rek laa leen di xamal di leen ko baamtuwaat mooy ñoom la mu jël du man maa ko ko jox am na lu ma ko jox te la ma ko jox respecté wul contrat bi respecté wul la mu war a joxe joxeegu ko dèjà jël na leneen loo xam ne bokku ci loolu buñ ko tuddul ah, ah, man de association de malfaiteurs laa ko tudd ak détournement ñoom nag nañ dëgël seen bopp lenn nag laa leen di xamal saccum dënd yomb na lool waaye foo koy tëgg mooy jafe sabar gi ngeen di woote man ngeen woote dëkk bi fi jaxase de sabar gi ngeen di woote woote ngeen ko di ko fecc de yeneen ko commencé fecc mais bu leen sa waxee na sabar gi du am daaneel rek gëm leen ko ndaxte dëkk bi yoon moo fiy doo amul ku mu mënte doon muy muy civil ah ku mu mënte doon te yéen ni ma leen di gisee amule ah sama xalaat bu gàtt book amu leen sax place si fi ngeen nekk parce que yéen da ngeen di yàq deru koor bi ngeen nekk ah koor bu ay ah, beneen seen koor bi ngeen nekk rek da ngeen di yàq deru waxatuma beneen koor loolu daal moo tax ma wax ko léegi nag ñi naan état jël na jël na état bu jëlee dafa war a jël parce que état moomu moo mais nag état kan moo ne kana la état day def lu ko neex amul. état day jël mais état day déglu nit ñi état da ngay dem ñu déglu la état nag li li ngay du ay xeex sànni xeer moo koy réglé état bu la bu jëlee mais boo dégloo état bu jël bu la joxul bu jëlee cent pour cent bu la joxul quarante cinquante dina la jox kon nag lépp dañuy waxtaan ak état li ma si lii nag mooy damay gërëm euh, samay am di jàmm ak ñëpp. parce que jarna ma leral surtout bu say mbok ak say dekkendo di geureum timit wa jalaw TV ñi xamne ne ñoo ñoo ma may tribune bi pour ma wax parce que mënu ma dugg ci buntu kër kep di ñep di di expliquer di wax motax il fallait ma def tribune bi ma ngi geureum ñep ñi may àndal am na si soutien yeeg yëpp samay wajur, samay rak samay mbok ñom pap Thiandoum ñi may andal yep parce que comme nima ko wax yag yag deug gi day feñ ludul deug day daw yeksi si mais dëgg gaa ngi dox di ñëw te bu doxee ba ñëw bu soobee yàlla ñëpp dinañ xam fa la dëgg gi féete loolu daal laa ne woon dinaa ko wax ma leen di jéggalu wasalaam.